ba tey ah, ñu ngi nii Pikine ci kër Ama Baldé maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay mbër bu baax a baax. yaa ngi ci sant naa bu baax sant sëñ Tuubaa ak waa këram di sant nag kullu rijaalu laay maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci kàttanu yàlla. baaxum kay lamb ñu ni ay at a ci desoon ñu doon wax ay weer. ay bés ba tey ñu ni ay minutes moo ci hmm. mais ni mu préparé wu gisee ko xanaa Pikine yëpp nekk derrière Ama Baldé nga gis kër gi ni mu mel mën naa ne un ngi nii kër gi nii la mel xale la boo xam ne bii waa Pikine am nañ ci moom yaakaar moom itam mu am confiance ci waa Pikine tey nii bés bi nga xam ne bii moo jëm muy suba ci kàttanu yàlla nañ ñaan yàlla rek woo nag waa Pikine yëpp. ak supporters yeeg ak ñi nga xam ne ñii euh, fans yeeg ñëpp ci kàttanu yàlla fële ci arène nationale ñëpp teeru ko xaar ko fa ñi nga xam ne ñoo ko war a yóbbu sënk ko indi ko ci làmb ji ci kàttanu mu mu jàkkaarloo war a joŋante nag ak Modou Lo wax Doudou Lo ci kàttanu yàlla di ñaan yàlla ñun ñëpp ci kàttanu yàlla ñu ñëw àndandoo def ko feet yàlla may ñu ndam yàlla ànd ak ñun ñu daan ko jël bu rëy ci kàttanu yàlla war nañu ñaan di ko di ci waa Pikine ñun bëgg ñu dara lu jàmm ak salaam ñoo ngi woo ñëpp ci jàmm ak salaam amul sànni xeer amul dóor yet amul saag yuuxoo amul bravo amul dara ñoom ñëpp dañ ñëw daal nekk ci kanamam ak ginnaawam di ko féete euh, victoire ci kàttu yàlla may ñu ndam loolu la bëgg. waaw am keroog amoon presse bi a gis moom. moom loolu la la nekk jekk noonu la ñu nekkatee ay magam pedd ku ci bës a jóg ci ay magam da ci am seen bu waxee sax mu ne ko li ngay wax li wax tey waxi jigéen la loolu wax yu ñaaw yooyu Amadou ko war Modou Lo da koy wax rek seen diggante ak moom mais du ko mos a sàllal loolu la gis ne xeetu yu jëkk bu mu mujjee di seet rek am seen daanaka bu ñu gën a wax daanaka saaga ko gën a saaga boobu gën a moo gën a sell mais ñun benn noonu dañuy wax rek ci combat diggante ñoom ak moom. mbër nag yàgg naa xool mbër mi adversaire am yàgg na xam ne kii war na mën a bëre ak moom mais du xeebal du dara dañ ñaan yàlla rek ci kattanu yàlla bés bi yàlla sottal ko lépp rek sotti incha allah. Modou Lo keroog ñu ko gisee open press bi état de forme bi xeex ak Ama Baldé. waaw loolu bëgg ñun mais ñun bëgguñu mbër muy arrière bëgg ñu xeex gëddee ñu moom ñu xeex ñoom ñaar loolu laa bëgg daal. da nga xeex. non dama bëgg ñaar laa bëgg barke li may la xam barke Seexul Xadim laa bëgg dama bëgg bu ko gëddee mbuur rek taxaw fa ñu xeex ñoom xeex ba ñu nangu la yóbbu leen ardo dellu si at la nga yóbbu ama bu dibi dëkk doon si suuf loolu laa ama tey ma ñëw fekk fi cosaan gis ama sànq mu génn ñii di tëgg nii ñoo doon ànd ak bàyyi ama digg tëggal bàyyi ama bés bu tolloon nii ñu jóge ba Guinée. ñi jóge Casamance ñi jóge Gambie waa Gambie léegi la ñu ñëw ñëpp ñëw fekk ci kër gi ñu mel nga gis ne de passage ñooñu ne Ibrahima Diop bu baax indi na fi ñaari nag pour gan bi Gambie yooyu ñëwee rek la teg fii kon ñun tam ñoo koy remercier bu baax a baax di nuyu nag ki nga xam ne kii mooy suñu promoteur liggéey li ko lay bu baax a baax ak staff bi ànd moom di nuyu nag mbooleem koo xam ne kii rek yaa ngi Pikine yaa xam nga takk ngemb wala takkoo ngemb di supporter waa Pikine dañ lay ñaanal jàmm ak salaam ci kattanu bu subaa du jour ji dimb tey samedi dimanche ñu ànd ak mbër mi ci kattanu yàlla bëriñ moom la duma ko daan ko ci kattanu yàlla non kii maa moom ñoo bokk faral ñoo bokk añ ñooy reenandoo ñooy ndékkiyandoo waaw loolu loolu loolu amul amul problème yooyu amul problème yooyu mu ngi fi ci gi di waxtaan ak ay xaritam ak i réer na ñoom waxtaan ak ñoom. non non yooyu itam ama loolu da ko donn loolu donn mu dëgër da ko donn ci dërët donn ko ci sëdit li war koo jaaxal yàlla xam na ko li war koo jaaxal. nii ñoo non lii yéen lay jaaxal mais ñun loolu jaaxaluñ ci ama luñ jaaxaluñu yow moom la mu amul pression yàgg na ko wax gars yi bu may bëre bu leen sonn aw ma pression kon mu mel ne nii yaa ko gisee waaw mais gis nga ko rek bi mu nekk di xam naa ne sponsor yi war nañu ko seet si rek bu combat bi jàllee ci kàttanu yàlla ndax jàpp naa ne euh, bu sooree yàlla bu ñu jógee ci combat bi loolu la ñu ne moom lu lépp loo xam ne ne rek da ko ci kàttanu yàlla. gis naa Pokola dem watu ji léegi. non ñëpp a watu gisoo ni ma mel man. waaw waaw ci kàttanu yàlla dañuy roof couronne ba mu suuf costé comme ni mu ko waxee. waaw yàgg nañ xanaa moom la daw jéggi ñibbi. ñu dàq ko ba ca rond point foo ne xaw ma kaas ba la xaw ma fa lañ koy. waaw fa lañ koy bu bu dawee génn bu ñu tëjee barrières yi mu buruxlu barrières yi dañ ko dàq ba ca jàpp ci cëggam buddi ba cëggam dóor ci suuf moo la gën a xam. combat yàgg. lu ko yàggal xanaa mu daw ñibbi. ah ma dina attaqué moo la ko gën a xam sax moom Modou xam na ko loolu ngay wax ndànk dafa mel ni ngeen ne géej am na ndox. baaxam man xam nga ma jaaxal ci yow ah. hmm. ba combat bi taxee benn kàddu bi lay wax baaxam fi mu toog la ba alterné ca boo moom fekk si ma fii ndax dina dellu ci li gën lu ma dellu woon ginnaawam de bu alterné boo ñëwee fi teg fii sees bi ñu seet suñu victoire nga laaj ma teg li nga tegoon sa morom teg li nga ba xam ndax li ma waxoon di dañ virgule dañ la ci am déet. daa am lu la ci wala sa mbër nga wóolu. non damaa sama mbër sama mbër wóolu boppam. rek gëm naa ko mu gëm boppam mais moo ma tax moom moo ma woon tax ma gëm boppam ma gëm ko ndax daa gëm boppam. kontaan naa ci yow bëri noonu lañ teel a dagg seen biir sécurité bi sax na mbërë nga fa ñoom ñëpp la ñëw ànd ci discipline ànd ak yar ak teggin ci kattanu yàlla dégg nga ni yaa ba wax noonu bëgg ko sànni xeer bëgg ko sànni xeer bu sànni ndox sax bu ko kenn sànni nañ toog seetaan ba am toog seen diggante génn seen diggante yéen ñëpp ngeen kontaan ci kattanu yàlla am ci kàttan yàlla loolu yaakaar jooju ci kàttan yàlla yaakaar jooju jëm képp lay kàttan ñu def loolu loolu mën ko wàññi ñoo sant ñëpp jërëjëf. man de ma ma ma fekkaat la kër naa ma mel ni da nga mel ni da nga mel ni sa xel dafa dal période bi loo yëg. combat bi aw ma si xel ba muy dal ak wala mu bañ a dal combat sans xel la. waaw amuñu pression boobu xel bu dal a dal. karaj karaj mu dam machine bi tas. incha allah amul leneen. bi nga gisee Ama léegi mu génn yëngal ay mbokkam dar ko moment yooyu bi nga gisee Ama tey. waaw li la wax rek comme ni nga gisee chaque jour xam nga léegi noonu la tam dàqee dóor kii daw song kële bëre kële moom muy làmb ak bañ a nekk làmb yëpp noonu la mel. loolu yëngalu ko feregew ko ñente mbër la deret bi mooy daw si yaramam bokk la koo xam ne dañ la programmé pour nga nekk mbër kii par force doole mbaam yëfu mbër rek lay def du benn. si roi bi waa Pikine di ko xaar waaye ama gën leen ko bëgg. li ko mën a la Pokola moo doon tudd bi suba la ngénte bi te roi des arènes lay tudd ok wa wax bi leneen loo si teg yàqu ko. suba lan lañ mën a suba lan lañ mën a xaar ci mbër. mais lu ni mu la tàmmal rek xam ni mu la tàmmal ma yow leer na la leeru yàlla li des ci làmb li des ci mbëru làmb ci Sénégal li des ci mbëru làmb ci Sénégal. amul kenn kenn ku yàlla bind nga mën a ñëw jàpp ama bërik moom daan amul ci histoire amul si àdduna kan kay yow la ci def mooy lool ay complement ay affaire yu ñu yeggale rek la da ngay taxaw wala taxaw rek boo ñu ñëw boo déplacé ñu fekk la fa sa tàkk sa koñ sa gaj Moustapha Gueye billaay wallaay tallaay waaye li loolu yow <laughs> doo bàyyi attaqué dafa am yoo xam ne dañ koy judduwaale ci deret lay nekk Balla Gaye 2 bu arbitre ne mbar day ñëw Ama Baldé bu arbitre ne mbar foo day ñëw Sa Thiès bu arbitre ne mbar foo dekk day ñëw ah ñooñu ñoo ko fa am waaw yow nga xam ne da ngay toog nag teg cin yaa ngi dégg teg say bagage di xaar ku ñëw kooku yow loo yow yow yow da ngay maanaam loo for rek yóbbu te ñun nag suñuy bagage kenn du ko for da ngay liggéey da ngay liggéey ba tas waaw way na ko ku bëgg tekki di nga di nga lëftoo bay tas du caaxaan barki yàlla yëfam la da koy jël. waaw doo ko ñu aywa doo ma bàyyi man daali ma may ñaan yàlla mooy na nga taxaw rek dëggal ku taxaw dëggal la moom ñu dem suñu ñu teel a dem. waat bi dee mbar Ama Baldé nga xam dëgg la moom ngay bëreel waaye est-ce que moom ngay gis mais slogan mais del bi tamit. wax feeñ. jëli laa ko andi fii. incha allah mais mais dama ko dëgëñ. amuñu quoi mais mais kontaan ñoo far yow sa king ndaanaan bu mag bi loolu.